Boubacar Diarra chargé de communication bu Thiès solidarité ngeen euh, yore ab kuréel di dox ci wàllu social ñu amoon fi jafe-jafe fii ci euh, Awa Diop tey euh, ginnaaw rek bi nga xam ne yàlla def na ko saafara ba li doon wut ak lépp tey ban sentiment ngeen am. waaw Omar dañuy sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin vraiment di gën a santal yàlla di remercier aussi ñu nga xamante ne ñoo bokk ak ñun liggéey bi yëpp. di si njëkk a tudd caisse solidarité di si tudd ñu nga xamante ne ñooy caisse info ñoo jàpp si liggéey bi waa Saint Malick si aussi vraiment ñoo ngi leen di remercier bu baax a baax di sant nag Umar bu baax ñu nga xamante ne ñoo gis jafe-jafe bu Awa Diop àndal ñu xam ne si dëkk bi la dëkk nekk doomu dëkk bi. ñu gis loolu jël seen alal def si képp ku ci def sa alal ak nu mu toll ba ci dërëm jàppal ne kees solidarité mu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax a baax waaye nag sant gi rek lenn kese la dañ di bàyyi ak borom ndax ku dimbale doomu aadama suñu borom dimbale la ku jàppale doomu aadama suñu borom jàppale la rafet nañ lu ko kontaan nañ ci suñu xol seet na si bu baax a baax waaye nag dafa nekk ne liggéey bi day door a door. ndax soo nekkee si benn mbir def ko am ay nit ñu ko gis sunu borom jàpp si parce que yàlla rek mooy faj sunu borom jàpp si ba ku nga xamante ne moom la ñu fekkee woon mu tëdd mënu woon jog ay activités yëpp kale ay waajuram jaaxle ba tey jii moom mooy dox ak tànkam di remercier nit ñi ba tey jii moom mooy dox tey jii di waxtaan ak nit ñi di dalal nit ñi Omar loolu sant yàlla la. kon ñoo ngi si sant bu baax a baax kes solidarité ak kes info ak waa Saint Malick si mais dama ne ak waa Sénégal. ndax mbir mi wa senegal ñoko ñoko ñoko gis wa sen gis doomu senegal ñoo ci japp ku ci def sa deureum nak jappal defal waxo sa bop mais defal goxo askan bi yeb defal goxo askan bi yeb gis nañu jappale yi gis nañu taxaw yi kon ñu xamantene ñun lu ñuy def lu nek dafa am fuñ ko tek Omar dafa dafa si sama bir kaddu makay faral di wax amna ño xamantene yor dañu dépasse mais ñu dem marché dañuy yobante kon ñun dañ fi nekké tay taxawu askan bi ba nga xamante ne seen jafe-jafe ñu mun ta dem marché jox ñu seen yóbbal seen yóbbante ñu andi ko ñu am si suñu borom loolu moo doon suñu taxawaay. jërëjëf. waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Moustapha Cissé euh, di coordonnateur maanaam.

ci saa su ne sax waaye dañ naan alhamdulilahi rabil alamin ndax eh, métti woon na biñ ci taxaw bi ñuy njëkk nekk ci loolu waaye tey yàlla dogal na fi ñu si tey ku gis Awa Diop mii ak Awa Diop bi toogoon fii ay weer ci ginnaaw ay fan ci ginnaaw maanaam eh, dina xam ni am na eh, benn différence bu ci nekk bu baax dañuy sant yàlla waaye tamit dañuy sant nit ñi nga xam ni ñoo ci dugal seen alal benn dërëm bu mu ci mënti doon dañuy ñaan yàlla ful ko def ko mu doon caabi àjjana ñëpp ci barkeb Seydina Muhammad bu loolu weesoo tamit euh, dañuy sant anciens yi nga xam ne jàpp nañ ci ndaxte man mi jiitu dañ maa jiital kese waaye ki jiitu du jiitu bu jiitoo dafa fekk ne am na ñoo xam ne ñoo ko jiital moo tax nangul ko moo tax mu àgg tey fi ñu àgg ni mbir mi du man du keneen ak keneen ñëpp la doo gërëm yàlla rawatina nag waa Thiès solidarité ci taxawaayu Xadim Samb mi nga xam ni ah bi ma ko gisee léegi yéex a xamante moom lay rëccu saa su ne waaye xëy na nii la ko suñu borom dogalee woon moo tax damay ñaan sénégalais yëpp jàpp ci Thiès solidarité sénégalais yëpp laay wax africain yëpp ñu nekk ci addina bi ku ci mënti nekk foo mënti ne wool waa Thiès info wala nga jokko ak ñoom fexe déggante Xadim Samb ci Thiès solidarité ndax day dox ci social day dox ci euh, li jëm ci doomu aadama te defalu ko boppam ñëpp la koy defal donc damay ñaan loolu ñëpp ñu jàpp ci waaw rawatina aussi waa Thiès Info kenn du ñoom ndax tey jii nii dañu naan lawbe ñoo defar ndënd waaye bu ñu bëgg bëggee mu siiw dañu ko yóbbu ngéwal mhm. donc tey Thiès Info gàcc ngaaraama ñoom tamit ñoo ko siiwal ba mu siiw tey ba tey aw job mi ñi ngi sant yàlla alhamdulilah loolu la ñu mën a wax jërëjëf Khadim Samb euh, yaay président ci solidarité ngeen di dox ci wàllu sociale bëri na kaa yu jaar ci seen loxo yàlla def ci saafara tey bii weesu na bu awa euh, tey yéen a ngi am yeneen kaa lu ci mel ni euh, Ami Thiam ak yeneen tey ban appel ngay lancé ñi nga xam ne rek ñoo nekk surtout à l' mais également ñi fi nekk rek yàlla dénk leen ay ndomb tànk mais également koppoor. Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatulah Omar maa ngi nuyu Thiès waa yëpp. di ci jiital kilifa diine yi fi nekk di jaale Idrissa Gueye ak euh, tafsir abdourahman sen waajur di genn aduna yalla xare ko euh di wax ni dañu am satisfaction tay, ci manam suñu sœur di suñu rakk di suñu lepp muy soxna awa yalla def tay ba mu meuna am ak tan gu bax di ci sante ñepp ñu ci japp rek ndax suñu borom mo ne sumara ma rëdd naa ko asfal ku taxaw ko xamanteni dafa dafa wo rek euh, manam man maa lay fayal sama bop waye di lancer appel ndaxte cas yi ñu am dafa bari ndaxte fi mu ne nii tey Omar Thiès euh, euh, Thiès solidarité ñëpp dañu daw wut si ko te dañu soxla taxawaay tey am nañu cas bu am solo muy soxna Ami Thiam dëkk Aiglon nga xam ne somme un million six cent quarante mille francs <clears throat> moo ko war a opérer moo ko war a faj ki so fajoon soxna awam yi moom moo ko war a defal opération muy docteur di ko remercier aussi moom ci disponibilité am Euh, di ci lancer aussi diaspora bi lu mel ni Argentine di ci nuyu Pape Demba Samb euh, depuis Argentine di ko wax ne ko ne sénégalais yi nga xam ne ñu nekk nañu foofu nga xam ne dañuy bëggee ci solidarité ñi ngi leen di woo ci kaaw Amitiam bi di ci woo tamit argentin yi nga xam ne ñi ngi nekk foofu nga xam ne ñoom ñëpp dañuy suivre Thiès solidarité ñoom aussi woo nañ leen ci bu ñu jógee foofu aussi dañuy dem Paris di woo Lamine Samb Euh, di ci wo tamit keur seigne touba yi nek fofu ak mbok taalibe yi nek fofu ak sénégalais yi fa nek yépp nga xamné ñom ñoom ñëpp ñi ngi def ay collecte pour jappalé soxna si bu ñu jugee foofu aussi ñu dem ba Italie di ci lancer appel Matar Samb aussi mom aussi vraiment gis nañ taxaway bi mu ci def vraiment ñuy wax né rek euh, nañu fexé dal soxna soos ñuko yalla mëna mën taxawoo ba mu mëna def opération le plus rapidement possible di wax ne nag ndox du jéggi kam autorité yi nek fi au niveau de la ville de Thiès ak Sénégal ñëpp ñu ñuy dégg ak bonne volonté ñiy dimbali ñi ñu xam ak ñi ñu xamul woonan leen ci bu ko defee yàlla mën a def soxna soosu def opération mu réussir ndaxte ñaar fukki ak benn yaakaar naa du caaxaan. ndaxte bi 1997 ba 2018 mi ngi feebar soxla ndimbal kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla mottali ko di sant waa Thiès Info di ci jiital le directeur Sey Latir. ak ñëpp ñoo xamante ni ñi ngi bëggee ci solidarité ak tous les membres ak waa Best FM ak ñëpp di jaar wasalaamaaleykum wa rahmatullah